Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين wa ala wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baad mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci mustafa ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi ñu lislaam boole te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jël nuyoo boobu it di ko toog ci loxol directrice soxna maam Fadlo mi nga xam ne moo jiite daara ji ñu tuddee soxna maam Xawa Dem mu tegal ñu ko ci loxoy kilifa yi fi nekk yépp di góor di jigéen di mag di ndaw waaye di jiital ci nuyoo bi nag waa kër Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñu ngi ca jotaay bi ànd ko ak ñun ci suba ba tey taaral jotaay bi lool ñu tudd ci ku mel ne sëriñ Bassirou Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom Serigne bu Mbakke ak soxna Muslimatu Mbakke moom sëriñ basiiru Poroxaan ak mbooleem ñi fi teew ñëpp kon ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna maam Fadloo waaye di nuyu it sunu jëwrin sunu lépp nga xam ne mooy soxna maam Xawa Dem danañ ci dellusiwaat léegi incha allahu taala waaye di nuyu yit sëñ Maxtaar Jenn ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp xam naa dañuy bañ a lim di juum ak aimma yi nga xam ne ñoo fi nekk ak chef de quartier bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi sëñ maam Balla moom moo jiite quartier bii di imam bi waaye ñu bokkaat métier mi kon moom it ñi ngi jël nuyoo soxna maam Fadloo boobu di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxol chef de quartier bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom bokk ak moom quartier bi di ci am mbégte lool bu baax a baax a baax a baax a baax kon di nuyu it Serigne bu Mbacké comme niñ ko waxee damaa juum léegi moom c'est Serigne Mouhamadul Fadil bu kon ñi ngi jiital ci moom nuyoo bi bu baax di ci am mbégte lool xam naa kaddu yi nga xam ne nag moom lañuy ñuy yëkkati te di ko yëkkati di tudd euh, directrice soxna maam Fadlo xam naa kàddu yi lépp kaddu yi cant rek lay doon yoo xam ne wax nañu ko te nam gën a mate ak nam gën a rafete ndonte danañ lottu lool ci jàllalee ko noonu waaye xam naa ñu jéem rek kàddu yi nag la ca njëkk mooy ci cant gi nee na mi ngi sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne fi ko féete kenn féetewu ko fa nga xam ne lii lépp moom la ak yàlla mi ko tànnal mécce mii nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na moo gënci ci mécce lépp lu nit di wut di ko mécce woo di ca wut dara nee na mécce mii nga xam ne nee na moom la ko yàlla tànnal moo ca gën ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne woon fa xayru ma taxattum alayhi ajran kitaabullahi bi tambihi li gën lu ngeen di wutee alal nga xam ne dañ leen di weer day dee ñu fay leen nee na la ca gën mooy téereb yàlla bi kon nee na mi ngi ciy sant sunu borom mi ko ci xërtal nga xam ne moo ko xërtal ci métier mi waaye it ne ginnaaw sant sunu borom mi ngi sant ñaari way juram tey sàkku ci way jur wu góor wi ñi fi teew ñëpp ñu ñaanalal ko ko yàlla sunu borom dolli ko njëggal dolli ko yërmande ndax moo ko jàppoon ab loxoom ànd caag waajuram wu jigéen wee di soxna aji daraame ñu yóbbu ko teg ko ci loxol soxna maam awa dem miitoo mu jàngal ko tarbiye ko taskiye ko ba tey résultat bi bépp mën a génn kon nee na mi ngi sant ñaari waajuram yooyu tey sàkku ci wu góor wi ñëpp ñaanal ko fa mu tëdd tey te dana ko yëgit nag ndax daañ ko ko gaaral yàlla sunu borom dolli ko yërmande jéggal ko yërëm ko muy sëñ seexloo su noppee ci loolu it di sant nee ab sëriñam muy soxna maam Awa Dem di ab royuwaayam nga xam ne lu nekk ci moom moo ko ci def moo ko jàngal moo ko yar moo ko ubbil daara ji jàppale ko dimbale ko ba lii lépp ngeen gis tey grâce soxna maam Awa Dem mais moo nekk ci ginnaaw kon nee ne koy sant sant goo xam ne aw làmmiñam lottu na ci di ko tudd ndax fépp fuñ ko war way jur waroon a féete soxna maam awa dem nee na moom féete na ko foofe moom soxna maam faati ci anam yëpp ak kodoy bépp rek ci anam ba gën a mat ak anam ba gën a rafet moo tax tey ngeen gis résultat bu rëy bii li olof di wax ne feccum liir su neexee yaay jaa jaa jàpp yaay jaa jàpp te mbagg ya mooy kon li ngeen fi gis nee na moom du ci dara lépp soxna maam Awa Dem mii la looloo tax it cofeel gum am ci moom ak yëg-yëg gum am ci moom ak def gum ko def modèle lim ma wax ci moom lépp su ma ko toogoon fii di ko wax mën naa jël waxtu wi looloo tax bi mu demee ba xamul nu muy def maanaam li ñuy wax maanaam dayob li nekk ci xolam moo tax mu jël daara jii tuddeewu ko kenn te ñim ko mën a tuddee bëri lool waaye ki def ci moom li tax mu mën a def ci moom xale yi moom la ko tuddee muy soxna maam awa dem yàlla ñu ko yàlla fayal soxna maam awa nag moom ah ganiyun ani taarif doy na sëkk sëñ mu dem mooy waajuram yaayam soxna sëñ baara waaye it mu nekkaat ci la maamam nekkoon ak la baayam nekkoon ak maam yi jàpp naa ne sëñ Tuubaa ñëwoon xam naa ne du toppiwaat ab toogaayam ndax day man mii toog lu ne ci man ci njàngleen wii ak yoon wii moo ko ci def ndax ba ma ne cëpp ci dëkk bi maa ngi ciy jégglu nag soxna maam Faati Laay waaye dama ko ciy ñambaasaale ndax mënuma koo ñàkk tudd moom laa tegoon sama saak ba fii ma toll mosuma bàyyi lu ma xam ci internat lu ma ci def ak lu mu mën a doon mooma mooma yooyu yëpp ñuy wax moom mii moo nekk ci suñu ginnaaw kon ñu ngi koy sant xaw ma keneen xaw ma feneen dew ma feneen maag sunu maam ñoo ci yam ci loolu moom rek lañ xam lu ne ci ñun moo ñu ko defal jàngal ñu ni ñuy taj wiitee jàngal ñu njàng mi xew mii ba noppi jàngal ñu nan la ñuy yoree xare ak nan lañ koy tarbiya kon jërëjëf dem sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax waajur yi gërëm ñëpp gërëm nañ la ndax sa taxawaay ca Poroxaan képp doy na sëkk sa taxawaay ji tax daaray maam jaare jii doy na sëkk nga xam ne lépp luy alquran ña ngi ko fay jàng lépp luy français ña ngi ko fay jàng lépp luy sariya ña ngi ko fay jàng lépp luy arabe ña ko fay jàng di ci am ay diplôme yu rëy kon jërëjëf dem dama xam ne nag xam naa su ma taxawut maanaam mën naa cee xuus loo xam ne dana jël waxtu wi lépp ndax ñun xamuñ ku moom kon sant nañ la bu baax ci turu maam Fadlo waaye nee na it ci ay turu ay mbokkam ñëpp la sant ndax xam nañ li nga defal famille bi ndax day nii mu mel. famille bépp ba koy maanaam euh, euh, euh, tiitaroo di ko waxuma sax famille bi waaye tiim na loolu head ni sama professeur anglais di wax maanaam head niveau ci ñi nga xam ne maanaam ñu baax ñëpp lañ daañ ñi ngi tiitaroo maam Fatimi ngir taxawaay bu mu am ci diine taxawaay bu mu am ci alquranul karim kon soxna maam Awa Deme ma taxawlu foofu rek ngir mën a dem ci ñi ci des waaye sant nañ la bu baax gërëm la bu baax ci turu maam Faati Lo su loolu jàllee nee mi ngi sant nag mbokkam yépp bàyyiwut kenn di góor di jigéen di mag di ndaw duma mën a lim sëñ Cheikh Dramé ñoom ñëpp a ngi fi mënuma leen a lim waa Saalum it ñëw nañ def délégation bu rëy nekk ci ay ginnaawam ñu ngi nii toog kon damay mbëbëstal cant gi rek wan na leen yéen ñëpp soxna si nee na gis na leen sant na leen gërëm na leen ci nii ngeen ko jàppalee dimbale ko taxawu ko sutural ko ci bisam bii nga xam ne nee na moom benn bis am te mooy bisu alquranul karim bi kon sant na leen yéen ñëpp sant it soxna maam jaara saaxo di nga nga xam ne ku am taxawaay la ci daara ji di doomu ndeyam di xuloo waaleem nag ñu baal ma ci kàddu googu waaye di léppam kon mi ngi leen di sant ak soxna amiloo ak sëñ xaadim magam ak famille bi ñëpp dama leen di bañ a nekk di lim par kenn kenn ndax ñëpp la ma waxte liste boobu mënumaa nekk di ko lim ngir waxtu wi kon mboolem famille bi ñoom ñëpp sant na leen gërëm na leen bu baax a baax a a baax su loolu jàllee nee na muy sant it ay parents d'élèves amul seen fay ci taxawaay bu rëy bii nga xam ne taxawuñu nañ ko ndax nee na kat moom ba ay waajuram jiitoo jàpp ko jox ko soxna maam awa dem ba def ci moom li mu def ci moom lépp nee na su amul woon ñu ko jox ay xale mu mën leen a jàngal alquranul karim kon tey jii lii lépp du mën a am kon parents yi suñ ko dee wax tey naan ko yaa sayda jàngalekatu alquran nee na yéen a tax ndax mën na koo mokkal mën na koo bëgg a jàngale mën naa am yéene ji waaye su gisul ku ko jàngal nu koy jàngalee kon loolu du mën a nekk kon moo tax euh, mu ngi sant parents d'élèves yëpp ci taxawaay bu rëy bi nga xam ne am dañ ko ci moom muy la ca jiitu mooy jox ko seen xol waaye yëkkati seen alal di ko jox waaye la ca tegewaat mooy nag fexe ba li ñu warloo ak daara ji maanaam ñu sàmmante ak moom respecté ko bu baax nee na sant na parent yëpp bàyyiwul kenn muy góor di jigéen di mag di ndaw waaye la ca gën a neexaat mooy kenn ku nekk yaa ngi koy jàppalewaat ci sa ñaq sa kem kattan ndax kenn ku nekk nee na sooy fay si dana gis ne doo yem ci la nga warloo ak daara ji ndax daara ji ku fay dem xam ne soxla na omo daara soxla na suukar daara soxla na ceeb daara soxla na lu ne waaye ñoom parents d'élèves yëpp a maase takku ci loolu su visite amee kenn ku nekk da nga fay ba noppi am loo indaale jox ko daara ji ba yu sew sewaan yooyu ak hygiène bi ngeen di wax ci moom ci kër gi ak wàllu set gi loolu lépp mook parents d'élèves yi ne ñoo ko ànd ñu taxawee ko di ko jàppale bu baax kon nee ne mooy mi ngi leen di sant xam naa su ma ci nekkee di wax fii ba suba du jeex ndax nee ne gis ngeen bis bi ni mu taaroo ni mu jekkee baas yeeg bernde yeeg dara manqué wul te loolu garaas nee na ay parents d'élèves am ñoo ko jàppale bu baax a baax a baax kon loolu lu am solo la te mat a wax nee na manqué wul dara la ca waroon lépp def ngeen ko ci anam ba gën a mat ak anam ba gën a rafet kon mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax su loolu jàllee nee na muy sant it chef de quartier bi comme li ma ko waxee woon ci njëlbeen ga ak imam bi muy sëñ maam si la mii toog ci suñ ginnaaw te dalal guñ ko dalal ci quartier bi waaye dimbale guñ ko dimbale ci quartier bi xam ne jigéen la ñoom ñëpp lu nekk ci ginnaawam ànd ak waa quartier bi xam ne lii kii moom dimbale ko du di moom la ñuy dimbale waaye dimbale ko mooy dimbale lislaam ñoom ñëpp ñu di ko jàppale di ko dimbale di ko nemmiku yëg ne am nañ ganu islaam ñu taxawaay ko taxawaay ba gën a mat ak taxawaay ba gën a rafet kon nee na soxna maam Faati nee ne sant na la imaam yow ak chef bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ci quartier bi yëpp mi ngi koy teg ci sa loxo nga tegal ko ci mbokk yëpp mu jot ci ñoom ñëpp su loolu jàllee yi nee ne mi ngi sant ñi mbokkal métier mi ndax kenn desut ak ñi koy jàppale ci biir kër gi kenn desut ndax nee na kenn ku ne xam na ne moom dong mënul lii waaye am na ñoo xam ne ci biir daara ji ñoom ñoom ñoo ànd muy yeneen yaa saydaa di ko jàppale ci liggéey bi ñii nekk ca waañ wa ñii nekk ca cet ga comme ni ma ko waxee woon maanaam nga xam ne ku ñëw ci daara ji yàlla mi amul kumpa xam na ko te kum neex soo jugee mën ngaa jug dem ci biir daara ji nga wisit ko ci wàllu hygiène boo xam ne ñu ëpp ci sama classe gi doo ko fekk sax ci seen biir kër te loolu lépp pastéefam ak niñ ko yaree ak niñ ko tàggatee ndax lépp maa ngi koy mi ngi mel ne maa ngi jàkkaarloog moom te soxna sii dend ak moom doon ko def ci moom ma fekkee lépp maanaam tax na ba loola moom lay tari fii mu nekk ci daara joo xam ne set wecc wecc wecc wecc maanaam nga gis tëdduwaay yi kenn ku nekk wala ñaar ñu nekk ñooy bokk ab lal nga gis xale bu nekk ak bitéelu boppam la yor ca lay naan ci lañ koy defal lépp lekkin sell ndax waxtu wu ne maa ngi ñëw di ko expecté di xool lu may jubbanti ak lu may wax waaye macha allah bariwul lenn loo xam ne mën nga ko fee wax kon nee mi ngi sant équipe am boobu mu àndal ñu di ko jàppale ci côté yëpp di ko dimbale ba tax liggéey bi mën a mel nii bàyyiwu ci kenn su loolu jàllee ah xam naa dafa mel ne ñu ngi may signalé ne waxtu wi xam naa maa ngi yaatal euh, la tege rek mooy di waxaat ne mi ngi sant yi nag xarit yi yëpp ak soppe yi ak dëkkandoo yi bu baax bi ma waxee dëkkandoo yi rek bi ma waxee imaam ci la dëkkandoo yëpp dugg kon nee na bàyyiwu ci kenn waaye mi ngi sant it bu baax xarit yi ak soppe yi di sant it ñi koy jàppale bu baax di sant sunu sëriñ bu baax bii toog sëriñ bu am taxawaay lool kenn ku nekk xam maamam ju baax ja muy sëriñ bu Mbakke lim def ci alquran lim def ci lislaam kenn dootu ko nekk fii di ko wax waaye way juróom bu baax wa sëriñ Fadlu Souhaïbou jaar ca waaye moom mii it mu jaar ca bis bi ñëw ca suba ba tey mu toog di ñu gunge ànd kook ñun sëñ Soxna Maam Faati nee na sant na la bu baax gërëm la bu baax ak oustaz Mor Loum sëñ Abdoulahi Jaxumpa ak mbooleem mbokk yi fi nekk nga xam ne mënu ma leen a lim ak sëñ Ibrahima Ndiaye waaye ak sunu xarit sunu soppee ku am taxawaay ci lislaam muy sëñ Maxtaar Jenn mee nga xam ne kenn dootu ko xam le ngir taxawaayam bu rafet ci lislaam macha allah ñu bokk métier mi ma xam ko depuis vingt-trois ans ëpp na ko depuis ca fajaaja depuis ca parcelle mosuñu koo xamee lu dul nekk ci lu baax di ko def di ko wax di sikkar turu yàlla fu mu toll loolu mooy liggéeyam mooy métier lislaam dong allah lislaam rek lay xëyal lislaam rek lay gontal te lii may wax yàlla képp a tax ma di ko wax ndax ñoo bokk métier mi te léeg-léeg mën nañoo gëj a gisee lool ndonte la ma suñu ma duggee waxoon laay wax gëj a gisee gi nag dolliwul lu dul cofeel sama diggante ak yow loolu la sëñ moo daan ma wax sëñ Modou Gueye loolu la wax lu bëri suñu gëj a gisee mu ne ma sëñ Abdou man nañuy gëj a gisee waaye na nga xam ne cofeel lay dolli sama diggante ak yow waaye du ci wàññi dara waaye moom mii nag dafa am taxawaay loolu muy sëñ Maxtaar ku dem ca Touba yor na fa daara ju mag joo xam ne résultat ya muy def kuy seetaan koor gi da gis résultat yu rafet yi nga xam ne maa ngi ko fay taxawee muy internat bu mag waaye doyu ja def na fa jumaa ju mag joo xam ne da koo def ca koñ ba ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala kon su ma ne lislaam lay liggéeyal lislaam lay liggéeyal waaye doy na ca sëkk loolu lépp doyaat mu jëfaat ubbiwaat beneen markas boo xam ne franco arabe bu mag su ma ne gënta rëy ci Touba yit bokk na ci yi gën a rëy ci Touba mu am ca taxawaay bu rafet koñ bi fépp ci Touba képp ko bëgg a jàng ñëw di jàng te mën naa ne daanaka joxewuñ dara loolu lépp mu def ko waqfu lillahi taala ak liggéeyal lislaam ak liggéeyal Cheikhul Khadim ak diina ñor ko lislaam ñor ko mu am ci taxawaay bu rafet boobu kon soxna maam Faty nee na su bis bii ñëwee nga xam ne amul lu dul moom nga ñëw bàyyi sa soxla yëpp jugee ba Touba ñekk ci ginnaam boole ko jox ko xaalis bu bëree bëree bëri boo xam ne kenn mënu koo tudd fii kon ñu ngi lay sant ci turam di la gërëm ci turam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala gën laa dëgëral gën laa jàppale gën laa taxawu ba ni ngay taxawoo daara ndax formation yi ak yëpp ñu ngi lay gis nga am ci taxawaay bu rafet yàlla nañu la sunu borom tabaaraka wa taala fayal te guddal saw fan bu baax wéral say cër bu baax kon loolu la waxoon dañ ko wax ci yow kon nag ma jeexal bu baax nag ci soxna maam Faatimi ñu ngi koy sant bu baax moom it te di ko gërëm bu baax ndax jigéen la de te su ko neexoon defi leneen waaye taxawaay bu rëy bii mu am kenn ku ne xam ne ne alquran jàngale ko ab coono bu rëy la laaj fekk ne dafa nekk jigéen nekk ndaw di jug quatre heures et demi wala quatre heures pile mu jug nekk ci xale yii di leen sa alquran di leen sa téere yàlla bi ku mat a ñaanal la ku mat a jàppale la ku mat a taxawu la ndax taxawu ko mooy taxawu lislaam ndax kenn ku ne xam na li ci njàngaleem alquranu karim waaye jàngal na xale yi waaye yar na leen ndax li sëñ Omar wax léegi mooy dëgg koo xam ne bi nga ubbee daara ak léegi matagut 4 ans nga mën a am 5 xale yu mokkal alquranu karim ak xale yi ma xeet niveau bi ñu nekk maanaam niveau bu kawe bi ñuy tari ci alquranul karim loolu ni mu doyee waar da xam ne kii naxul kenn mi ngi liggéey kon may jiital ci sama bopp te jug te wax samay loxo di ci tàllal ñëpp loxo ndaw soxna sii ñu jàppale ko di ci tàllal ñi nga xam ne ñoo fi toog ñëpp bàyyiwuñ kenn di góor di jigéen di mag di ndaw ndax kenn ku ne xam na ne ku dem ci kër gii ak ni mu taaroo ak ni mu setee ak ni mu sellee da nga yëg ne kii am na yëg-yëg am na xol bu rafet am na bëgg-bëgg ci daara tax mu nangoo jël kër gu mel nii da ci pay deux cent cinquante mille par mois te garage ay parents waaye garage ay mbokkam yoo xam ne fu nekk dañ faa nekk su weer dee ñuy cotiser di ko jàppale di ko dimbale ngir mu mën a fay kër gi kon mbokk yi nañ ko dimbale nañ ko jàppale nañ ko taxawu ba daara jii di soxna maam Awa Dem am barabu boppam. incha allah ndax luñ la mën a wax ak luñ mën a wax ak lu coow li bëri bëri bëri nañ ko jàppale ak fu mu mën a doon ñu xam ne daara ji moom moom fii su boobaa booba la daara ji nekk nekk nag ak daaru gën a soog a taxaw ndax lu dul loolu rek waxtu wu ne xelam du dal bu baax ndax koo xam ne su weer dee mbokk yi ñooy complété ngir nga mën a fay barab bi kon loolu ñëpp ku fi nekk te man dara ku fi nekk te xam ku man dara war nga caa taxaw. tegtal ko ñu def ab commission ñu jiite ko nekk bureau parent d'élève bu dëgër bu forte bu taxaw ànd dem doxi seeti ñooñu ba barab bii balaa déwén ñuy toog fii ñu ngi koy tegal père première père ca barab sàngam jox ko lislaam loolu mooy li nga xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne mën na caa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. incha allah kon ne mbokk yi. jërëjëf ñu signalé ne kàddu gi jeex na. waaye di daaneel it nag ci sunu xarit sunu jëwrin sunu soppe. muy sëriñ xaadim Njaay mii ci sunu ndeyjoor baax lool tey sunu doom di tari ngeen gis ne kenn mënu ko bëgg lu baax lool ñu dëkk ay at bokku néeg ay at ma jël ci moom jikko yu rafet yàgg maa dimbale lool yàgg maa taxawu lool yàgg taxawu maam fàlloo dippi semaine maag moom ñu ngi fii mool yéeg xeer yeeg li fi nekk lépp maag moom miyee ko ànd te man xam naa ne sama la ma man bëriwul waaye mooy jël biri ji di ñaq di tooy xëpp te lépp lu ko waral mooy bëggam alquranul karim ak taxawaayam ci alquranul karim yor classe di yeewu quatre heures waxtu wu ne mi ngi jàngale maa ngi koy woo ci classe ba nga koy fekk kon sëñ xaadim ñu ngi lay sant ci turu soxna maam Faati waaye la ci ëppaat solo gis ngeen tey jii lépp loo xam ne xam naa sëñ Omar kooku moo koy mën a jàllale nag bi mu jënd da nga ñëwaat nag wu mag woo xam ne lépp lu jëm ci bernde yi moom mii moo ko def kon loolu ñu ngi koy sant di ko ci gërëm bu baax moo soxna maam jaar saaxu ak mbokk yi nga xam ne ñoo ko ñu doon jàppale ñu ngi koy sant di gërëm ba kon ñu wàcce suñu kàddu ñun nag koy sant moom soxna si am moom dañ koy bàyyi ak rek xam naa la ca tege nag mooy te foofu la ñuy daanelee ah xam nga moom jàmbaar la waaye nag sëñ daa am lu mboxoon sëñ tubaa woon aw sàkket lum rafet rafet rafet balaa taxaw jege ay xer mooy ab miir nee na lum rafet rafet rafet balaa tege nag balaa taxaw nag dëgër jege ay xer kon nag ab junj la te ñi am xel daañu xam maanaam junj bi ndax al isaaru takfir li mën a xal. incha allah ah, baa ngoog nag. leer na kon nag war naa am ab am miir boo xam ne moo koy dëgëral nekk ci ginnaawam ku ku nekk candidat nag na jaar si ci man. ma jaar ci jëwriñ ju mag ji ñu soog ko egg ci jëwriñ ju mag ja nga ñëw bindu waaye bunt bi moom fii la faaw nga ñëw bindoo ci man balaa dara xew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen baal ñu àq bu baax a baax a baax. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa kàddu yi moom du gudd ndax li ma fi dégg ci ñu sant Lo ñu sant Sakho ngi sant Daraame bu kàddu gu guddee bootu dañ la jéppi waaye ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu sëriñ Chouaïbou di ko am mbégte lool ci teewaay bi. di nuyu sëriñ Jaxumpa di ko siifar bu baax di déglu ay kàddoom moom sama mbokk taalibe ci bokk daaru minam xam naa moom balix salaami ila cheikhi cheikh abdul hakim di nuyu sëriñ di nuyu euh, sëriñ bi sant jon sëriñ muxtaar jën ci kàddu yi am solo yi mu fi def ak seede yi ak taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci côté Soxna Faati nga xam ne loolu ni mu ko waxee daara yu bari soxla nañ ko léegi ndax fu mu ne sëriñ daara bi léegi moom ca ña koy def maanaam taxaw di sàkkooti ndimbal ci kenn lu jëm ci wàllu daara moom jàpp nañ loolu ceexaan la te daara moom eh, ginnaaw sëñ daara bi day ñëw mel ni sëñ Omar Kan si luy sol mbaseem bu rafet gaare wotoom ñu ne ñàkkul dara fekk léeg-léeg mbubb mam sol ak woto bam gaar yépp mu ngi naan ndax tey jii bis bi dina jàll <laughs> ndax problème kon nag boo amee taxawaay bu mel noonu wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy sant ñaan yàlla mu yokk la bu baax a baax ndax daara moom fekk amagoo sa barabu bopp la gën a soof ci li ngay def mooy bu weer dee nga fay luyaas fam sama benn xar bu ma sa lii dal soxna Faat dal ko muy lii gurée kër trois mille par mois ba ci yaa yàlla dogal mu dimbale ko mu dem ci daaraam donte yëggagul woon weer dee ma woo ko ne ko nu daara jëf ba amuti jafe-jafe mu ne ba daal tubaarkaat la mu ne yii daara ji neex na ma ne ko lu tax mu ne weer a ngi nii te kenn laaj mu 300000 <laughs> kon nag yàlla ko yàlla génn ci luyaas dem ba am barabu boppam di jël kàddu gi nag ci turu quartier bi ci turu délégué nekk ci yitte moo tax waaye moom bëggoon na fee teew di sant euh, soxna Dem mi nga xam ne ñoo bokk tool bi te muy jàmbaar lool jigéen ju mën góor ñu bokkaat yeneen liggéey yi ñuy def yaatal mbindum alxuraan mu am fa taxawaay bu mat sëkk am fa liggéey yu mat sëkk yoo xam ne ma ngi ko fay taxawee nekk ferte itam ci jigéenu Sénégal yépp ku xam li nga xam ne moom lay taxawee ndax li ko suñu borom wax wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax xayrukum man taallama alqurana wa allama suñ ñëwoon ci baas bi di tànn ñi fi gën moom ci ñi fi gën lay bokk loolu nag moom suñ borom la neex rek mu defee ko noonu du dee ne ki koy def moo taxaw ne man ma sañ taxaw naan maa gën kenn waaye yonent bi moo ko joxañ na ko yow yaa bokk ci ñi gën nga bokk ndax taxaw bi nga taxaw di jàngale alquran kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na daar ji gën a jëm kanam fa mu ca mégab te egg yàlla ko fa yàlla yeggale di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ndax bëgguñoo guddal ni ñu ko waxee léegi daraame daraame saaxu saax yi ñu ngi xaar kon nag ñu ngi koy yemale foofu rek di nuyu sëñ xaadim mi di nuyu sëñ Abdou Karim sëñ eh, Omar Kane ñoom itam wax dëgg yàlla taxawu nañ seen jigéen fan yii yëpp ñu ngi dajeek ñoom fii ngir lépp bis bi war a mën a mel nii kon nag ñu ngi koy gërëm moom itam di ko sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki jullit yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom subhanahu wa taala ci def ay ndigalam ak moytandi ko ay tereem di nuyu soxna ma awa dem li nga xam ni jataay bii comme ni ko mbokk yi waxee ci ñi ko waral ci la bokk di nuyu it kilifa yi diine yi nu fi fekk di ci tudd nag sëñ Ablaye Xumma mi nga xam ne sunu xarit la sunu wëllëre la te ku ko xam xam ko ci lislaam ak ci tasaareem jàngaleem seeni Touba yàlla na ko sunu borom kattanal soxna maam Fat euh, loo nii mii nag day jàmbaar joo xam ne ci wàllu alquranul karim ku xam histoire lislaam di nga xam ni su jigéen duggee ci alquranul karim ba mel ci nu mel nii du la jaaxal ndax ci siira ñaar ñi njëkk a bind kaamil ci islaam ay jigéen lañ muy umu salaama ak xafsa xafsa bintu omar ibn alxataab ñi njëkk a jàngale alquran di daara ci lislaam moom jigéen la muy ummu waraqa bintu abdullah ibn xaaris donc kon loolu su melee nii bi tey jii du nekk loo xam ne lu jaaxal la ci ku xam histoire l'islam dëggantaan kon liñ koy def moom mooy ñaanal ko te jàppale ko te taxawu ko njàppale gi nag ma nga jëm ca xadis anas ibnu malik bi muy wax ci sadaqal jaariya xaju fi pour ñu nettali ko waaye danaa tënk rek ni xadis boobu mboolem li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci sadaqal jaariya boo ñëwee ci daara fekk ko fa juróom-ñaar yi mu wax yépp nag boo ñëwee ci biir daara di ko fa fekk kon nii nga xam ne moom la sëñ maxtaar jenn ubbee moom la sëñ maxtaar jenn ubbee loolu képp koo xam ne bëgg ngaa def waqf mën nga koo def ci daara ndax ci biir xadis ba yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ni képp ku dindi ubbi ab teen maanaam ku gas ab teen ay nit di ca naan ca xadis boobu nga bokk waa kon ki ñëw ni man daara ji man na maa fay lépp lu jëm ci facture ndox mi fii at kon kooku dugg na ci xiyaare gi yonent bi sallallahu alayhi doon wax ni xayrukum man taallama alquran wa allamahu primi buñ ko yemloo ci kiy jàngale alquran kese waaye primi dafa yaatu jën naa yaatu loolu mooy leen képp koo xam ne taxaw nga ngir dimbali alquranul karim te alquran nag warteef la ci képp ku nekk dimbali ko ndax borom bi subhanahu wa taala moo ko wax moo waxoon yonentam ni ko wa innahu la dikrun laka wa li qawmik wa sawfa yow yonente bi sallallahu alayhi wa ci yow lan wàccee alquran waaye ëllëg nag dinaa la laaj lan nga liggéeyal alquranu karim moo tax al imaamu tabari rahimahullah ba muy firi laaya ji dani jaaykat bi nekk ca marché ba jaaykat bi nekk ca marché ba yorub ta taabalam bu ëllëgee yàlla dina ko laaj ana lan nga dimbalee alquran karim ci sa taabal ja moo tax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen daan nañ ko jox ak canam mu jël can gi yóbbu ko ca daara ja defee ko wax kon képp koo xam ne mën ngaa jàppale soxna si ci loola mën nga cee taxaw ndax li sëriñ bi wax léegi ni nekk ci barab di ko luye di jàngale alquranu karim lu metti la amaana sax xëy na sam xel du dal kon nag nit ñi ñoo war a jàppale jàngalekatu alquranu karim yi ndax borom bi subhanahu wa taala am na lu mu waxoon bu yonentam nee na illaa tansuruhu faqad nasarahu llah yonent bii boo ko jàppalewul yàlla moom danañ ko jàppale kon nag soxna sii nga xam ne yàlla moo ñu booleeg moom it suñ ko jàppalewul yàlla subhanahu wa taala dina ko jàppale kon nag ñu bokk ci ñu yàlla subhanahu wa taala di ko jàppale ñu boole wàlla ca loolu day nekk lu am solo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatu Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer